mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Euh, mbokk yi yéen ñëpp Seydou Bakar salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Euh, def na wax ji du gudd. nee daal am nañu yaakaar ni wax ji du gudd. addina yàgg na. nee addina yàgg na. liñ fi war a def yëpp yàlla ko santaane. lii ñu fi war a def yëpp yàllaa ko santaane te booba ñun ñii kenn fekkewul fa mu ko santaane te boobee ñun ñii ñëpp kenn fekkewul fa ko yàlla santaane kon kon nag wax ji du gudd wax ji du gudd ndax wolof dafay wax ni ndax wolof yéen yéenay wax naan lu ñëpp bokk lu ñëpp bokk te mënuñu ko séddoo te loolee ñu bokk ñoom mënuñu ko seddoo nañu ko teg ci loxo kenn mu yéwénal. nañu ko jël teg ko ci loxol kenn kookee yéwénal ko. ñépp jëriñ. ñëpp daal jariñ loolu moo am ci jotaay bi. nag moo am ci jotaay bii. waaye nuyoo nag. waaye nag nuyoo nag. wa rafanaa baadahum fawqa baadin darajaat. wa rafanaa baadahum fawqa baadin darajaat. am na ñoo xam ne fokk ñu tudd leen. am na ñoo xam ne daal ñoom fokk ñu tudd leen. maasale. am na ñoo xam ne dañ leen di maasale. ñi ñuy tudd ak ñi ñuy maasale nag. ñi ñuy tudd nag ak ñi ñuy maasale nag. ñoom la yàlla di pangandoo ci barke yoon ci yàlla. ñoom la yàlla di pangandoo ci barke yoon ci yàlla Muhammad. tabal ajjana tabal ajjana aliyin. waxuma barke Serigne si de. mais waxul barke Serigne si de. barke yoon mu yàlla Muhammad la wax sallallahu alayhi wa ñu doore ci nuyu surafaaw yi fi toog. ñu doore ci nuyu surafaaw yi fi toog. di Seyd Tahir. di Sëriñ Tahir. Seyd Hamza. Seyd Hamza. di Sidi Ali. nuyu leen ziyaare leen. ñoom ziyaare leen. ndax euh, li waral ma doore ci ñoom. nee ndax kat moom li waral mu doore ci ñoom. xaqiiqa xaqiqa la te bu sharia wéyee bu sharia wéyee sunna dem sunna dem xaqiqa moo ca war a di leen ziyaara itam di ziyaara itam kilifa diine yi fi toog sunu mag alxaaji Mouhamadou Moustapha toog ni góor gi alxaaji Tafsir Saaxo toog ni ak yeneen kilifa diine ak yeneen kilifa diine yi ñu nuyu leen ñoom ñépp jataay bi liñ ci soxla mooy na ko yàlla nangu. bi daal liñ fi soxla mooy yàlla na ko yàlla nangu. baax na. baax na nag. xew baax na. li fi xewit baax na. am njàng la. am njàng la itam nag. yëngu ca la nga bokk. yëngu daal loo ca la nga bokk. wàññiwul dara wàññiwul dara. te joxe dépense. te nag ñàkk joxe dépense. du tere sukk ci ndënd waaye du tere nag nga sukk ci ndënd li. ñaari xew-xew daf fi am. ñaari xew-xew nag daf fi am. benn bi benn bi. baatu kilifa la. baatu kilifa la. mu di baatu Sidi Muxtaar Mbakke. muy baatu Cheikh Sidi Mouhamadou Muxtaar Mbakke. yónni Serigne Baara Abdoul yónni Serigne Baara Abdoul Ahad. ca darajay xilaafa ga la. kooku ca darajay xilaafa ga la. Serigne Modou Mamoun Bousso. Serigne Modou Mamoun Bousso nii. jël kàddu jël kàddu gënalu ko gënalu ko waaye rafet na na nag yàlla nose yàlla nag boo nose la mu nose nag la yàlla nose nag fii ci mooy fii digal ba fii digal ba la yàlla dee bind bu yàlla dee bind ci li gàtt li gën a gàtt rek ci daal li gën a gàtt rek kii mbàkke la kii Mbàkke la kii Mbusoobe la kii si la ñépp ci maam maaram rek kon ñoom ñëpp seen loxo mën naa dugg ci biir ndab li moom kooko kenn kooko rek moom meññi ñëpp kon nag ñooñu mu lim léegi bu ñu fi bokkee daje ku dugal sa loxo rek kenn du la wax ni lu tax nuyu Sëriñ Mansour si nuyu nag Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour si ci tur wi ci tur wi ndax la bokk ndax loolu nag ci xorma la bokk nuyu ko nuyu ko moom ci jataayu kilifteef bi mu fi toogee ci jataayu kilifteef bi mu fi toogee ndax nit ku ñu kat nit ku ñu yónni. darajay këla yónni. darajay këla yónni rek. moom lañ lay moom la fi toogee te la fi la fi toogee. di sant nag ñëpp. di bëgg a jëfandikoo nag li sunna di bëgg jëfandikoo nag li nga xam ne sunna moo ko santaane. waaye bala ma àgg. waaye nee nag bala ciy àgg. dina sant sëñ Habib si mii nit nit daal day ñeme maamu ragal da ngay gëm mbaa nga weddi da ngay mbaa nga weddi bala yàlla bind ko kenn bala bind yow yëgalu ko kenn kon sa lépp na dem ca yàlla kon daal yow sa lépp na dem ca yàlla nit ñi nit ñi kenn mënatu fi indi lu fi amul woon. kenn mënatu fi indi lu fi amul woon. kenn mënatul waxit wax ju bees. kenn mënatu la waxit wax ju bees. Ah, ndax yàlla. ndax yàlla. dafa wax ni. dafa wax ni. wa zakkir. wa zakkir. fa inna zikre. fa inna zikre. ku déglu. ku déglu. note note. dégg dégg. jàpp daa mën a am loo jëriñoo. daa mën a am loo jëriñoo. fii jamono toll nag. fii jamono toll nag. ni nga ci waxee. ni nga ci waxee. yàlla wax na ko ci geneen anam. yàlla wax na ko ci geneen anam. bu wax jotee. bu wax jotee. nga war a wax nga a wax. waxal te génn ca nag. fa zakkir innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir ku dégg moom daal ku dégg. jëfe jëfe. yaag yàlla ku dégg ku dégg sànni. yow yaag yàlla. du lu bees du lu bees nag. dégg weddi dégg weddi. du lu bees. qaalu sami'na. qaalu sami'na. wa asayna wa asayna. yàgg na yàgg na. yonent yàlla Muhammad gannaaw yàlla moo fi jiitu lépp. yonent yàlla Muhammad gannaaw yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam moo fi jiitu lépp. waaye. waaye. ba ñuy wax wax boobu. ba ñuy wax wax boobee. ñëwagul ñëwagul. moom bi mu ñëwee li mu dégg. moom bi mu li mu dégg. sami'na wa ata'na mbir mi nag. mbir mi nag. dafa am boroom. dafa am boroom. te boroom am lu mu ci nam. te boroom am lu mu ci nam. te àddina mënula la soppiku ba ba yàlla weddi boppam. te àddina nag mën la soppiku mukk ba yàlla weddi boppam. yàlla dafa sàkk ñaari kër. yàlla dafa sàkk ñaari kër. te kër yooyu kenn ku ci nekk kër gu ci nekk dana am ñu ko dëkkee. te kër gu ci nekk nag dana am ñu ko dëkkee. moo tax yàlla woo ñëpp ba noppi. moo tax yàlla woo ñëpp ba noppi. tijji tijjiwul ñëpp. tijjiwul nag ñëpp. am na ñu mu tijjil. am na ñu mu tijjil. am na ñu mu tijjilul. am na ñoo xam ni tijjilu leen. am na ñu mu tijjil. am na ñu mu tijjil. nangu leen ci biir kër gi. leen ci biir kër gi. waaye seen dara la jàppul. waaye nag ñooñee seen dara la jàppul. wa mina naasi. wa mina naasi. man yaqulu amanna. man yaqulu amanna. billaahi. wa bi yawmi laaxir. waaye yàllaa ko weddil. waaye yàllaa ko boppam. wax ni. wa hum. bi muminin. yàlla ko weddi. yàlla ko weddi. nee na loolu nit ñi lañ koy wax. nee loolu nit ñi lañ koy wax. waaye man mi xam biir ak biti. waaye man yàlla man mi xam biir ak biti. kenn du ma ca dugal. kenn du ma ca dugal. yuxaadicuuna allaha walladina aamanu wa maa yuxaadicuuna illaa anfusahum wa maa yashcuruun. waxu sëñ Habib si mii. Sëriñ Baara Abdoul Ahad mii. Sëriñ Baara Abdoul Ahad mii. wax ji dugg na ko. fees na bëgg na wax bëgg na wax. waaye mënul dem waaye mënul dem. lu tax waaw lu tax. dëgg genn la dëgg la. kenn waxee waaye bu ko kenn waxee. na ko ñëpp nangu. sëñ Modou Mamoun mii. nee sëñ Modou Mamoun mii. mënul wax mënul wax. dégg li mu wax wax. dañ maa xas tudd ci waxkat yi. dañ maa tudd ci waxkat yi rek. ndekoon du ma wax. kooku kooku. borom xorma la borom ma nga bàyyi xelam. ma nga bàyyi ci kii ci kii. ñu yónni ñu ko samp. te ka ko samp. moo yónni kii moo yónni mu jël xorma jël xorma doxale ko ci digganteem ak moom. gay nee moo tax bi muy wax melul na mel na ku mënul a wax. waaye Habib jërëjëf. waaye sëñ Habib. Sidi Bakar nee na jërëjëf. na ne nag mën naa yóbbu boolam. xam naa xam naa guddi gee tax guddi gi sax moo tax waaye gën nga bare wax noonu waaye gën ngaa bare wax noonu nag dafa guddi dafa guddi waaye su guddiwul woon waaye fii nga gis ne bu guddiwul woon nga xam ni nga xam ni ku bare wax nga ku bare wax nga nee yow ak moom yéen a yem nee dañuy tarxiis rek waaye daal Seydou Bakane Sëñ Habib fa tabarakallahu nit nit daal. biir la am ak biti. biir la am ak biti. inna zawahira. inna zawahira. unwaanu bawaatini. unwaanu bawaatini. doy na doy na. Habib Habib. li nga wax. li nga wax. wax nga gouvernement bi li ñu war a def. wax nga gouvernement bi li ñu war a def. wax nga ci daara alquraan yi. wax nga ci daara alquraan yi. wax nga lépp. wax ci waajur yi wax ci waajur yi. ndax ndax penc mi ndax penc mi. balaa sell balaa sell. biir kër gi biir kër gi sell ba noppi. ñi ci biir kër gi ñi ci biir kër gi. nañu defar ñi ci biir kër gi defar ñi ci biir kër gi. ba bu ñu demee ca penc bu ñu demee ñoom ca penc ba. dara bañ a yàqu bañ yàqu. wax nga ko. wax nga yalwaan wax nga yalwaan. ak sarax ak sarax. yalwaan nag. su araamoon bu araamoon. yàlla du tudd sarax. yàlla du tudd sarax. الصدقة الصدقة إنما الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين yàlla nee na nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma lay digal xuz xuz min amwalihim sadaqatan ñépp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko ba noppi waaye waaye kon kay lu bees nag amu fi yow boo santaane zakat zakat doo ko may koo déedéet doo ko may koo tane ndax moomuloo ko jox ko ki la ko yàlla joxloo kon yalwaan kon yalwaan dafa am forme yu bare maanaa nag dafa am forme yu bare bare bare bare bare waaw allahuma la rabiraana yalwaan la kuy waaye kuy defal yàlla yalwaan la kuy lebal yàlla kuy lebal yàlla yalwaan la ku wuti edd ca biti itam ku muy gouvernement bi waaye yalwaan la waaye yalwaan moom ñëpp yalwaan nag ñëpp yalwaan déglu nag tuuti xam nga lu waral yalwaan loo aajowoo mooy ku am loo aajowoo te amuloo ko te amuloo ko gis ku ko am gis ku ko am nga yaakaar ni soo ko diisee sa bopp mu jàpp nga yaakaar ni soo ko sa bopp mu jàppale la ca nga dem ca wax ko ko ko mooy ndimbal rek mooy ndimbal rek wa taawunu alal birri amul lu mu añ waaw léegi yow ku amul lu mu añee nga sarax ko mu am añ am reer nga sarax ko yow faf moom mu am añ yemu ca mu am reer waaye loolu it ndimbal la wax dëgg yàlla waaye dalal nga xelam fa tabarakallahu Habib wax nga sëriñ wax nga it sëriñ si sëriñ si dañu bari dañu bari trop sëriñ si nag dañoo bari trop lool léegi fu ne ruq bu ne sëriñ léegi fii nu toll sax bu ne sëriñ a nga fa déglu télévision yi rek déglu rek télévision yi rek. ñeneen nga ca reen ya. ñeneen nga ca reen ya. nga ci jinne ya. ñeneen nga ci jinne ya. nga ci dëmm ya. ñeneen nga ca dëmm ya. ñeneen nga ca deru xaj. ñeneen nga ca deru ya. kenn xamul kenn xamul lu kenn xamul. fuuf gox bu ne rek ab sëriñ nga fa. waaye wax ji wax ji nag. waaye kaay wax ji wax ji nag. mooy góoru yàlla yi. mooy góoru yàlla yi. ñoo ñoo tax ñoo ñoo tax nag ñooñee di soow. ñoo war ñoo liggéeyal yàlla. ñooñu ñoo liggéeyal yàlla. ba yàlla fekk leen ca. ba yàlla fekk leen ca. nangul leen nangul leen. defal leen ci lu ñëpp xaj. defal leen ca lu ñëpp xaj. moo jur lii lii. ku ko door ku ko door. nekku fi fi. ku ko sos nekku fi. dañ koy sof rek dañ koy sof rek. ak di ko jëriñoo ak di ko jëriñoo. ci barke jàmbur. kon kon nag. wax bi daanu na sànq sëñ Habib daal Seydi Bakar ne yow ba nga waxee ni euh, fardun ala al ibni shukrul walidayni shukrul walidayni wa anta al walidul barru wa anta al walidul barru yaa ustaazu zindiido yaa ustaazu zindiido ñun ñii fi toog ñëpp kenn ku ci ne léeg-léeg nga gis ko dox jox la ñaari loxo lamb poosam football ay dallam mel na kuy bëgg a dee. na kuy bëgg a dee. foo waaw yow moomu ñu defal loolu loolu foo ko liggéeyee. foo ko liggéeyee fan doo wax foo ko liggéeyee. ñun kay kon li ñu war. ñun di wàññi wax ji. mooy wàññi wax ji. Asil Habib wax na ko. wax ju bare ji wax ju ji. mbirum yàlla mbirum yàlla. wax du wax du ko tas. wax du ko yàq wax du ko yàq. na caa wax waaye nag kaay nit mën na caa wax ba yàqu de. lii. lii. jataay bii. jataay bii. Touba ak Tiwaawan. Touba ak Tiwaawan. ñooy yaakaaru Sénégal. yaakaaru Sénégal de. waajo def ma ni euh, dama gis boo dee waxtaan doo tudd suñu suñu tariqa waaja dafa ni ko yow daal sëñ bi damaa gis booy waxtaan rek doo tudd suñu tariqa ma ne ko lan nga. ma ne ko yow lan nga. man man mu ne ko man mii laayeen laa. mu ne ko soo demee na nga ci génn. mu ne ko boo demee nag na nga ci génn. na nga génn ci laayeen na nga génn ci laayeen. ndax warloo ca bokk. ndax yow waroo caa bokk. mu ne ma lu tax mu ne ma mu ne ma wala lu tax. ñoo toog ca ngor. ca conférence ba. mu ne ma lu tax mu ne ko waaye yow lu tax. mu ne ko nit. mu ne ko nit. bu fu mu xamul dara. bu dee dund fu mu xamul dara. na fa génn. Eh, laayeen laayeen yonent lañu yonent lañu ñii ay sëriñ lañu ay sëriñ lañu loolu ko xanaa doo fekk ku yàlla yëkkati waaye waaye yow déglul xanaa doo fekk yow ku yàlla yëkkati ba noppi nga di ko wàcce nga di ko wàcce ba di ko tollooleeg ñi ko yàlla yemalewul ba di ko tollooleeg ñi ko yàlla yemalewul moo tax moo tax lu way di yëngu rek war na koo xam ndax njëriñ man caa génn te lu ca génn nag mu kontaan ca jataay bii nag ne Sidi Ahmed ma ne moo sos jataay bii fii ni ko sëñ Habib waxee sànq rek fii. Cheikh Seydi Hadji defal na fii yàlla lu ne. su fekkoon bañ a xaabaabal dina am lu ma ne bu fekkoon daal bañ a xaabaabal la rek dina am moom mii dina am lu mu leen nettali. waaye sunna sant ni. waaye nag sunna moo ñu sant ni. bu ngeen dee julli bàyyi leen xel bàyyi leen xel. ca borom aajo ya. ya. bàyyi bàyyi leen xel. jëm fu sore ca ña jëm fu sore bàyyi leen xel ca ñu lompoñ ña mënuñu taxaw taxawaay bu yàgg mënuñu taxaw taxawaay bu yàgg kon dëgg gu yàlla di nangu dëgg gu yàlla di nangu wala ñu yaakaar ni dana ko nangu wala yaakaar ne dana ko nangu te yàlla bu suñu yaakaar tas te yàlla bu suñu yaakaar tas Habib wax na ko sëñ na ko sëñ Baara mi wax sëñ wax na ko sëñ Bara dafa fees nee sëñ Bara fi ñu koy gis nii dafa fees dell nag. bëggoon naa wax bëggoon naa wax. waaye dafa xamatul rek fa mu jaar ba wax. fa tabaarakallaahu kon nag. sant yàlla. gannaaw sant yàlla. fii palaasu yaakaar la. ñu toog fi nag ñun jotaay boo xam ni. di waaj di waaj. ngir màggal la yàlla màggal. te moo di guddi juddu yonent yàlla. moo di guddi juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wa de. waaye nag dëppoona nag ak jamono yëpp. Euh, Sidi nag sos ko. jëlee tey kon fii kat ku ñëw fii tey ba jëlee fi tuyaaba. Sidi Ahmed mii moo ko waral. kon Seydou Bakar ne Sidi Ahmed yàlla na nga fi yàgg. te yàlla jàppale la. te yàlla jàppale la. boole ñu ca nag ñu nit. boole ñu ca nag ndax liggéey boo xam ni. ndax liggéey boo xam ni. soo ko fekkee sax defaru. soo ko fekkee sax yow defaru. waxatuma la boo ca bokkee. waxatuma la ak nag yow boo ca bokkee. sa maam Cheikh Seydi Hadji Malick wax na ko. malaa'ikullahi. laa ziltum min alkurama. xafat bi jamcikumu. tuba liman xadaru. loolu nag. waaw ku ñëw sax te xamuloo yow li xew. yàlla limaale la. kon mboolem kuñ fi tudd. ak kun fi tuddul yàlla na yàlla tudd la fa boppam te nag mën naa ne nag uzkuruni azkurkum loolu yàlla ko wax kon nag ñu ngi beesal nag cant gi di rafetlu bu yàlla doon yoot rek tey ba fekk nu fii xam lu ñu fi toogee du fi tëkku kenn du fi tëkk déedéet du fi tëkk kenn nañu rafetal suñu jëf nañ leen àndandoo bokk rafetal suñu jëf ñaari wax yàllaa ko wax ñaari wax yàllaa ko wax laa yamanu wala yamanu makrallaahi wala yamanu makrallaahi illa alqawmul xaasiruun wóolu pexem yàlla wóolu daal yow jaam bi pexem yàlla fii laa bokk ba ni man fii laa bokk ba tax yow lu la neex mel juum nga Habib wax na ko sànq sëñ Habib wax na ko sànq diggante yonent yàlla noox ak doomam kon kon bi la yàlla boolee ku baax waaye yow bi yàlla boolee ku baax sant ko sant ko te góor te góorgóorlu sant ko te góorgóorlu sant ko te góorgóorlu beneen bi ci des beneen bi ci des nag laa taqnatu min rahmatillah. laa taqnatu min rahmatillah. min rahmatillah min dama damay wax gars yi benn bés leen. ne day wax rek gars yi benn bés mu ni leen. xalaat daal dafay ñëw ci nit rek. xalaat daal dafay ñëw ci nit rek. pencum yàlla. waaw tey pencum yàlla. yàlla yàlla taxaw moo xam na muy taxawee moo xam nag moom subhanahu wa taala na muy taxawee nag limanil mulku yow limanil mulku yow ma kenn du wuyu ñëpp taxaw ñëpp dal di taxaw yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di taxaw iblis daal di taxaw ci jullit yi. yàlla ni sàq ci jullit yi. ni xër ci safara ni xër ci safara. iblis ni teqet ree. iblis ni teqet ree. boobu gàcce. boobu gàcce. yàlla du ko teg yonent yàlla Muhammad. huwa al-habibu alladi turja shafaatuhu li kulli awlin min al-awaari mawlaaya mawlaaya mawlaaya salli ko defee nag ma leeralal leen ne mu leeralal leen fii ñaari tànk la fi taxawe ne fii nag moom ñaari tànk la fi taxawe benn bi benn bi dama fee bokk yàlla ko fi boole yàlla mi fi boole nag. yàlla mi ko fi boole nag. moo jël ay kilifa teg ci sama kanam. ay kilifa teg ko ca kanamam. di samay mag. ñuy ay magam ci bopp di kilifaam ci diine mu toogal leen fi mu teewal leen fi teewal leen fi teewal leen fi di wax ci seen tur di wax ci seen tur muy eh, Cheikh El Hadj Abdoul Aziz. muy turu Mawlaaya Cheikh El Hadj Abdoul Aziz. Al Amin moom mii Sidi Bakar ne moo ko fi wuutu. moom mu wuutu euh, Seydina Cheikh Ahmed Tijani. moom waaye ñun ñaar ñëpp ñu bokk ko wuutu. waaye nag ne ñoom ñaar ñëpp ñu bokk ko wuutu nag. mënoon naa li wax ni sëñ Abdou ñëw na. ne mënoon na wax léegi ni sëñ Abdou ñëw na. moom Sidee ngi nii moom Sidi Ahmed ngi nii toog. sëñ Abdou ko jur. Moulay Abdou Aziz Al Amin moo ko jur. waaye jiitu ci sëñ Abdou. waaye nag moom sa papa nee moo la jiitu ci sëñ Abdou. ci wàll yëpp ci wàll yëpp nag. ci wàllu ndey ak baay ci wàllu ndey ak nag. comme maa la fi comme nag sëñ Sidi Ahmed. moo la ci jiitu nag yow. jëkk laa ñëw jëkk laa ñëw ci place bi. soo ñëwee ma tudd sama boo ñëwee mu tudd boppam wàcc la. rek mu daal di jeex. loolu rek fi nekk loolu rek moo fi ne nag. ñu ngi rafetlu nag ñu ngi rafetlu nag. lii suñu mbokk yi jëlee Touba. lii suñu mbokk yi jëlee Touba. keroog ba Serigne Baara gaañu. ne keroog ba Serigne Baara wàccee liggéey. ma dem jaale ji ji Cheikh Sidi Mouhamadou Mokhtar Mbacké. bokk na ca la ma ne bokk na ca la mu jëkk waxtaanee ak moom. te jàppe ko ko ba léegi. te jàppe ko ko nag ba léegi. mooy ñu agsi rek wax li nga war a wax. mooy ñu agsi rek wax li nga war a wax. li mu war a wax. li mu war a wax nag. bu ma kenn xàjjaleel. bu ma kenn xàjjaleel. ñëpp doonu jullit. nañ ñëpp doonu jullit. ci sama kanam ci sama kanam. waaye bu kii doon lii. waaye bu kii doon lii. bu kii doon lale bu kii doon lale. dégluwuma kenn. dégluwuma kenn. diine rek laa déglu. man daal diine rek laa déglu. ak ndigalal yàlla ak ndigalal yàlla. waaye ne wax booba nag. kilifa gu dëju. kilifa gu dëju. ñu di la déglu ñu di nga waxee noonu nga wàcc nga wàcc nga nag. wàcc nga wàcc nga. la ca des kay. la ca des kay. moo di moo di. ñi ko dégg ñi ko dégg. te jàpp ci yow ndegam dëgg la. te jàpp ci yow ndegam jàpp nga dëgg la. ñu jëfandikoo ko nag. jëfandikoo googu nag. jëfandikoo boobee nag. mooy lii ñu jàpp fii nag tey. fa tabaarakallaahu mooy daje bi nii mu tëddee. mooy daje bi nii mu tëddee rek. yéen nga ca mu waxoon. mais yéen ñii di xaw ma ñan waaye yéen yéen nga ca waxoon. moo leen fi indi. moo leen fi indi it. kilifa nag. kilifa nag. boo amee jikko. am yëg. gëm. gëm. fa tabaarakallahu dara manqué waaye jamono ji. déglu déglu. dégg dégg. gëm la nga gëm. gëm gëm it nag la nga dégg. fenn rek nga koy defee. fenn rek nga koy defee. ci xaalis ci xaalis. xaalis rek la nit ñi gëm léegi xaalis. boo ne woon xam nga xaalis du tuuru. te déedéet xaalis du xam nga xaalis Seydou ne xam nga xaalis du tuuru. bu ci gannaaw garab gale. buñ fii mu ne ci mbooloo mi bu ñu noonu gannaaw garab gi xaalis tuuru na fa. kenn du ko gëm ko gëm. waaye du dal xel waaye nag ñàkk a gëm gi ngeen du dal xel de. daa gis ku ni daa gis ku ni. ma tuuri ndox ma gën tuur ndox te ñëw. dem seeti ba xam. bi day. loolu moom. loolu moom. xaalis moom. xaalis moom. noonu la mel. la mel. loolu la jamono ji gëm. loolu la jamono ji gëm. ci la ñuy doy ñii doyadi ci la ñuy doyadi. ñii weddi ci la ñuy weddi. ñii weddi ci la ñuy weddi. ñi gëmadi yàlla ci la ñuy feeñale seen ngëmadi yàlla. ñi yàlla ci la ñuy feeñale seen ngëmadi yàlla. ñu goreedi ci la ñuy ñi ci la ñuy seen baadoolo ci la ñuy seenu baadoolo la ilaha illallah. montin. montin dey. wërsëg. wërsëg. ak dee. ñooyam. kenn du la ci jóge ci gannaaw. kenn du la ci jóge ci gannaaw. ci sa kanam rek lay jóge. dangay ngay dox rek daje ji. dox rek daje ji ak moom. lu yàlla bind ci yow. lu yàlla bind ci yow. daa ca jot daa ca jot. teel teel rek. yàlla waxul innal waaye yàlla waxul innal mawta alladi. tafirruuna minhu. fa innahu mulaaqikum da di dajeeg moom. moom kat da ngeen di dajeeg moom. waaye daw dee. waaye daw moo tax mag ñi ñu baax lañu. moo tax ndeysaan mag ñi ñu baax lañu. Cheikh Alhaji Abdoul Aziz radiyallahu anhu. Mawlaaya Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Dabba radiyallahu anhu. ñi mu bokkal ñëpp moo leen gën a gudd fan. mu bokkal ñëpp moo leen gën gudd fan. moo fi mujj moo fi mujj. waaye mujjug mottali. waaye mujjug mottali. ak defaraat ak defaraat nag. ñoom nag seen tarbiya. ñoom nag seen tarbiya. duñ la def loo xalwa. duñ la def loo xalwa. waaye dañuy liggéey ngay gis. waaye nag ñoom dañuy liggéey yow ngay gis. Cheikh Hadj Abdou Aziz. Mawlaay Cheikh El Hadj Abdou du jël benn comprimé. du jël benn comprimé. fas ko yéenee naan fas ko te du ni nii. te du ni nii. ni teg ni teg. soog koo wan. mooy yàlla mooy yàlla. kii kat damay sabablu. kii kat damay sabablu. waaye mënaluma dara waaye mënaluma dara. yow yaay defar. soog a naan. bàyyi nañ fi lu ñu lu ñu mën a roy. bàyyi nañ fi lépp lu ñu mën a roy. waaye nag waaye nag. addina ak ñi ëpp doole. addina ak doole. Habib wax na ko. Sëñ wax na ko. lim na lim ñaata yoon ñaata yoon. la Jibril wàccat ci suuf la Jibril wàccat ci suuf. te loolu. te loolu. Seydi Hadj Malick. Cheikh moo ko nettali moo ko nettali. ni yonent bee ko laaj ni yonent bee ko Jibril ndax su ma demee ndax su ma demee. dinaa fi dellu siwaat dinaa fi dellu siwaat. mu ni ko waaw dinaa fi dellu si woon nag fukki yoon waaw boo fi ñëwee yow loo fi wut nangam lay jël si nangam lay jël si lu mu mën a jël nag dana am lu fi des feek yàllaa ngi fi mbaax du fi jóg feek iblis yi mi ngi fi mbon du fi jóg kenn ku nekk nag yaay seet yow ci ban parti yow ngay bokk nga bëgg a bokk yaay xool mbokk ñu yemale foofa ne wax na léegi si xarit bu baax wax nga waaye ne xam naa mi ngi xaar boo ëllëgee dina ko nuyu si ne yooyu kenn ëpp la wax <laughs> léegi nag sëñ Mansour ñu ngi nuyu président di ko gërëm di ko gërëm ci yëg gi mu am. ci yëg gi mu am. ba yónni la fi. ba yónni la fi. Ah, yow nag. yow nag. bu la bu fi yónniwul woon it président bu la fi yónniwul woon it yow Mansour war nga fi ñëw. na ko saxoo. na ko saxoo nag. fépp fu ñuy tàntal yàlla. fépp fu ñuy tàntal yàlla. wala ñu di fa géewal yonent yàlla Muhammad. wala boog ñu fay géewal yonent yàlla Muhammad. buñ la woowee demal. woowee demal buñ la woowee it demal moom daal allahu akbar bi ñuy wax ci jàkk ji rek fekk na sëriñ bi di wax mu ni cuub toog sànq rek nopp nañu Habib di wax ñépp nopp te kat nodd tudduñu turu kenn kon li ngeen amee li ngeen amee dafay jeex day jeex buy jeex nag yàlla na rafet yàlla na rafet yàlla na ngeen rafetal. rafetal goo xam ne yàlla dana ci dugal loxoom. rafetal goo xam ne yàlla dana ci dugal loxoom. ba bu jeexee bu jeexee. lu ñu mën a way des fi. lu ñu a way des fi. waaye balay jeex nag waaye nag balay jeex nag. foo dégg ñu fa tudd yàlla. foo dégg fay tuddee yàlla. dem fa ñu yabal la yabal la ak ñu bañ la yabal. parce que. kuy wut loo xamul fu mu. moom daal kuy woo xam ne da ngay da ngay wut loo xam ne xamuloo fu mu ne. waaye foo dégg coow. demal ba xam lu xew foofee yal na yàlla barkeel yàlla na yàlla barkeel mi am na jàmm naa alhamdulilah réew mi am na jàmm de sant nañ leen di sant coow du faj soxla sant mooy faj soxla la in shakartum la zidannakum loolu la loolu la yàlla wax waaye ko yàlla jox. ku yàlla jox. nga dëkk ci coow. ci coow. di coow. di coow. yaa ngay weddi. yaa ngay la la yàlla jox. wala in a inna azabi la shadid. moo waral jafe-jafe yi. ñàkk sant. moo waral jafe-jafe yi. nañ leen àndandoo bokk di sant. di sant yàlla. fii ñi fi toog. ku fi génn. gis ku la yalwaan. amul ku fi génn gis ku la yalwaan. waaye kon kay kenn ku ne. yaa ngi toog ci cant. yaa ngi toog ci cant. goo ameel yàlla goo kenn ku ne war sant yàlla kenn ku ne war ngaa sant yàlla. kenn solul kenn solul sagar. te kuy yelwaan bu la rombee taxaw. te kuy yelwaan bu la rombee bokk di sant subhanahu wa taala. gouvernement amewuñu. ne. gouvernement andewuñu de. waaye génnul ci suñu dund ba mu jeexit. waaye nag génnul ci suñu dund ba mu jeexit. keneen amewuñu keneen it amewuñu. laa taqtulu awlaadakum. laa taqtulu awlaadakum. xashyata imlaaq xashyata imlaaq. loolu. loolu. bu ko yàlla waxee. bu ko yàlla waxee. moo di. moo di. seen yaakaar. seen yaakaar. seen i bëgg-bëgg seen i bëgg-bëgg. jubale leen ko ci man waaye jubale leen ko ci man. gàll ma ko te gàll ma ko. man rek maa ko attan. te yàlla kat ba muy maye booba ñaan xewul ba yàlla di maye daal booba ñaan xewul te digle na te yàlla digle na pour dalal xel yi hmm, kooku kooku euh, Abdou Aziz na léegi bi wax na léegi ni maamam góor ga moom góor ga monsieur Allé dafa bëggoon kurus bu xëyee dem julli ji fajar. balaa dellu si ci kër gi midi di jot. balaa dellu si ci kër gi midi di jot. waaye lu bon bon dana fi xaalu. waaye lu bon bon dana fi xaalu. bu la rombee du la nuyu. bu la rombee nag moom góor ga du la nuyu. dafa am benn baytu bu muy woyee dafa am nag benn baytu bu muy woyee rek. wa rabbuna wa rabbuna qad qasama al arzaqa min qabli ma qad xalaqa al axlaaq ah, sama ma ko wax de lu wax wa rabbuna qad qasama al arzaqa min qabli ma qad xalaqa al axlaaq maam ne wa rabbuna barakallah eh, sëñ bi ñu ngi leen di eh, sëñ bi Sidi Bakar nee na ñu ngi leen di delloo ngërëm di leen sant di leen sant di leen yóbbante cant di ci turu kilifa yi ci turu kilifa yi Cheikh Ahmed Tijani xalifa bi moom ak njabootam gépp xaasatan ak turu nag ci turu Sidi Ahmed si mii Moulay Abdoul Aziz Dabakh yóbbante cant. di leen yóbbante cant. ak ngërëm ak ngërëm. wolof dafay wax ne wolof yéen yéenay wax naan. domp sax ci sat la bokk. tabaarakallaahu. waxuma la domp. waxuma la domp. waaye xët ngeen. waaye xët ngeen. kay. tabaarakallaahu. yàlla na leen yàlla fay. Ah, di di di di nuyu nag. mbokk moo xam ni. mbokk moo xam ni. ku jeex. ci Mawlaaya Cheikh El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh la. fii xewit mosu ko wuute. nee lii fii xewit moom mosu ci mosu koo wuute. waaye bu ñëwee dafay ca gannaaw. waaye bu ñëwee day beru ca gannaaw. mu di Seyd Mamoun. Chérif Mamoun. muy Chérif Mamoun. Chérif Mamoun Haydara ma nga nële taxaw toog ca ginnaaw. Sidi Bakar ne ñu lay sant bu baax di la gërëmit bu baax. di la ñaanal yàlla. di la ñaanal yàlla. di sakku it sa ñaan. bokk yi nañu leen di ñaanalante nañu leen di ñaanalante te bàyyi di ñaanale te bàyyi di ñaanale ku ñaanalati nit ku nu ko yewit ñaanal ma sëñ wax na léegi nee na nee wax na léegi nee gën gémmiñ la yàlla di nangu waaw gën gémmiñ la yàlla di nango yàlla waxu ko kenn wax ko kenn waaye am na waaye am na de am na gémmiñ yoo xam ne yàlla du leen gantu kon nag ñu ngi yóbbante cant ak ngërëm. ci képp koo xam ne yaa nga yeewoo kër maam borom Touba. di ko jaarale nag ci xalifa di ko jaarale nag ci Seex Sidi Mouhamadou Mokhtar Mbacké. ñaanal ko yàlla. ñaanal ko yàlla. mébétam ak yéeneem. ak yéeneem. yàlla ko yàlla defal. defal ko ko foofee ca kër maamam googee. defal ko ko ca kër maamam ci kër maamam gii. Ah, defal ci kër maamam gii. ndax yëf yi mën a law ba rabbasoo lënkaloo lépp di benn ne lii sëñ Baara Abdul Ahad wax léegi yoon yi kenn ku ne fa nga jóge wax na dëgg yoon yi kenn ku ne ak fa nga jóge fii nga jëm si woon ak foo mën a jaare rek fii nga jëm si woon daje nañ fi kon daal kenn ku ne. na sellal la mu amee na sellal la mu amee. xam ni moom lay waxee ak yàlla ëllëg moom lay waxee ak yàlla ëllëg de. loole ngay waxee ak yàlla ëllëg. ma jël werd. waaw ma jël weer ma wut ma wut sëriñ ma wut leneen fekk fi ndigalal sëriñ yow fekk nga fi ndigalal sëriñ lu raw sëriñ sax lu raw sëriñ sax yàlla yàlla wàcce na fi alquran wàcce na fi alquran wàcce ko ci yonent bi mu jotal ko ba ñëpp jot ba ñëpp jot ci mu siiw ñi mokkal alquran ñi mokkal alquran mokk lu ñu laxdar yi déedéet mokk lu ñu ah, laxdar yi mokk lu ñu laxdar yi kon nag am na lu xew am na lu xew am na lu xew kon nag nañ leen àndandoo bokk góorgóorlu rek ñu àndandoo tàllal loxo yi nag jàng fatiha jàng salaatal fatihi nee ñu gërëm it alkaati yi gendarme yi service d'ordre bi dinaa leen dinaay wax ni. ne moom mii danay wax ni. sécu dañuy wax ni sécurité baa ngi. dañuy wax ni sécurité baa ngi. mu ne yàlla nañu yàlla boole sécuriser ñun ñëpp. mu ne yàlla nañu yàlla boole sécuriser ñu ñun ñëpp. ñun ñëpp ñu bokk. ñun ñëpp ñu bokk. ndax moom rek ko mën. ndax yàlla rek moo ko mën. sant sapeur yi. sant nag sapeur yi. corps médical bi. corps télévision yi ni ko Abdou Aziz ni ko Habib waxee Abdou Aziz. ni ko sëñ Habib sëñ Habib waxee sànq sëñ Abdou Aziz Moulay Abdou Aziz bi. ci Abdou Aziz. ci Abdou Aziz. fa tabaarakallaahu. Abdou Aziz. wàccul yoon te fa muy liggéey. fulla la fa nekkee. Abdou Aziz mii wéet na ak man. Bakar. wax ko ni ko boo gisee may yëngu ci yi boo gisee may yëngu ci yi sama ndey jaay Mansour mbay moo ma ko sant moo tax ma di ci sonn tabaarakallahu waaye ah am na beneen métier de waaye itam nag li mu mën ci lii li mu mën ci lii boole nañu ci nag abi wax na ko sànq yàlla na yàlla fay te yokk place ba yokk fa barke bi jaahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu tàllal loxo yi jàng fatiha fatiha bi ne ñu sante ko suñu borom ni ko la nga ñu defaloon daaw ni ko la nga ñu defaloon daaw defalaat nga ñu ko ren yaakaaraat nañu ko déwén ak yeneen i déwén kon yow yaa wax ni ku sant nga dolli ko dolli ñu dund ak wér ndax ñu fekkewaat ko fatiha salaat al fatiha ñaan ci yàlla yàlla yokk jàmmi réew mi yokk sutura bi yokk sutura bi yokk xéewal yi barkeel démarche yi barkeel démarche yi sottel projet yi lépp lu ci waay am. lu ci am. na ko yàlla barkeelal. amiin yal na ko yàlla barkeelal. lu ci waay di wut waay di wutit. amuloo ko amuloo ko. ma nga fa yàlla. ma yàlla. na la ko yàlla jox. yàlla na la ko yàlla jox. te barkeelal la ko. lu ci waa lu ci diis. lu ci diis. yal na ko yàlla waayee yal na ko yàlla waayee fan. ci mbaaxam ak yërmandeem.